jërë ngeen jëf mbokki Bawal Info TV mbokk yi maa ngi leen di nuyu yéen ñi nekk ci biir réew mi ak yéen ñi nekk ci bitim réew mbokk yi nag tey dañu seq waxtaan wu am solo ak ki ngeen jàkkaar lool ci image bi di maître Abdinar Ndiaye muy avocat à la cour di juriste boo xam ne bu ñu ràññee la maître Abdinar Ndiaye mii nag dafa nekkoon ci parti MPD liggéey bu Aliou Sow moo nekkoon porte parole nationale bu MPD liggéey waaye dafa génn ci parti boobu lan moo tax mu bàyyi MPD liggéey indi na ci ay leeral li ko naqari ci Aliou Sow ak doxalinu Aliou Sow ak lan moo tax ñu baree baree bari ci ay cadre wan ginnaaw Aliou Sow dellu dellu si na si lan moo tax tamit dem bi Pape Diop dem fekk Macky Sall bettu ko indi na ci ay leeral ndax moom maître Abdinaar Ndiaye mii li gën a sooke mu génn ci wan ginnaaw Aliou Sow bokk na ci bi Aliou Sow demee ànd ji ak Pape Diop ci élection législative yi bi mu demee ànd ji ak moom avant élection yi ci la génn ci MPD liggéey bàyyi coalition bokk gis-gis lan moo ko waral ci biir émission bi wax na manque de respect manque de considération bi nga xam ne moo nekk ci Aliou Sow wax na ci Pape Diop dellu si si Aliou Sow waxtaan wu am solo la ñu seq tey man ak moom di maître Abdi euh, Naar Ndiaye di avocat à la wax na ci ki nga xam ne nag moom mooy Ousmane Sonko nee na Ousmane Sonko dañu ko bëgg a faagaagal def ko ni ñu defoon ma Mamadou Dia te nee na loolu askanu Sénégal waruñu ko seetaan ndax Ousmane Sonko projet bi nga xam ne tey moom la gàddu projet la boo xam ne bu amal njariñ askanu Sénégal la kon dañuy ànd ak yéen ci waxtaan wi nga xam ne Bawol Info TV seq na ko ak juriste bi di maître Abdinar Ndiaye taxawal parti boo xam ne RPS la ko tuddee muy rencontre des patriotes du Sénégal. jër ngeen jëf euh, mbokk yéen ñi nga xam ne yéen a ngi déglu rajo réew mi FM 97.5 euh, euh, seen émission pencum réew mi muy émission boo xam ne dafay am samedi bu jot bu 15h jotee jàpp 16h ci rajo réew mi FM ngeen di si ànd ak Abdou Khadre Seck Mamadou Diawa Diallo moo nekk ci wàllu machine bi euh, mbokk yi nag tey ñu invité euh, maître Abdinar Ndiaye mu nekk euh, avocat à ba pare tamit jiite parti rencontre des patriotes du Sénégal maître ñoo ngi lay nuyu. asalaamaaleykum sëñ Abdou Khadre sëñ Abdou Khadre maa ngi lay nuyu di la sant di la ñaanal yàlla suñu borom. di profito ci maanaam nuyu boobu ma lay nuyu di nuyu bépp sénégalais di ñaan yàlla sun borom mu defal nu fan gudd lool gu ànd ko wér ak xéewal te musal ci lépp luñ mën a gàllankoor. maître Abdinar Ndiaye yow nga nekk euh, avocat nga jiite parti bi nga xam ne mooy rencontre des patriotes euh, du Sénégal kañ nga ko taxawal ndax yow yaa ngi woon. ci MPD liggéey nekk porte-parole MPD liggéey ak euh, professeur Aliou Sow lan moo la fa jëlee ak lan moo tax nga taxawal parti bi. waaw sëñ Abdou Khadre wala fi dañuy wax ni la taxa taxa yomba ko meññ pàkkeetu ko pour waat la taxa taxa yomba ko meññ pàkkeetu ko en dotre terme maanaam il n'y a pas d'effet sans cause euh, effectivement euh, jamono yi mi daa ñëw fii maa ngi fiy ñëwee ci qualité porte parole bu MPD liggéey waaye dafa am lu sabab lu tax ñu jóge fa xam nga sëñ Abdou Khadre man président Aliou Sow bi may dugg ci partem booba ak léegi bu ñu ko nattee toll na ci fukki at ak ñett. ah waaw man bi may nekk euh, étudiant maam ci sama première année euh, ci laa euh, gis ni moom discours am kat li ci ne mbokk na ak samay conviction parti boobu en fait non au préalable nekkoon na maanaam fële ci PDS nekkoon fa le secrétaire général en fait donc du MEL départemental de Tivaouane MEL boo ko déggee mooy mouvement des élèves étudiants libéraux mm-hmm. maintenant puisque effectivement ay libéro lan bi ma ñëwee université am bac ñëw université bi ma digloo effectivement après donc euh, bi Abdoulaye di jógee ci bopp réew mi euh, ma gis ni moom laa gën a méngool ci gis-gis ak ci xalaat. Aliou Sow Aliou dugg ci moom. mais bi ma duggee ci moom la taxoon ma dugg ci mooy euh, dama am yéene ci réew mi. bëgg a bokk ci ëllëg ñiy tabax réew mi waaye nag tabax gi tegu ci ak njub tegu ci dëgg. donc ñun li ñu taxoon di dugg ci engagement politique maanaam mooy le salut du peuple sénégalais. moo tax euh, ñu àndoon ak moom waaye bi ñu ab diir ña xam ni ñoom laa àndaloon ca njëlbeen ñu ci bari dama leen gis sëñ Abdou Khadre kenn ku ne bébbeeku di dem. waaye man bi ma toogee def jàngat gis naa ni la tax maanaam ñu bari dem bokk na ci manque de démocratie interne mooy Aliou soow dafay nit koo xam ni maanaam jàpp na ni maanaam nit ñëpp moo leen gën a yeewu maam ci doxalinam. dafa jàpp ni nit ñi moo leen gën a yeewu te jamono boo jàppee ni hmm. nit ñëpp yaa leen gën a yeewu booba la sa xel maanaam gën a na sax hmm. ndaxte dañuy wax ni xel mu rafet bu doon bu doon jaay day lamb mu boo seetee également ci wàll woowu dafay man en fait manque de respect maanaam ñi xam ne ñoom lay jëflanteel. Ah, loolu man ñu ci bari bi ñu quitté dama leen di woon ni leen mais lan moo sabab ngeen di bàyyi parti bi mais dan may xamal ni ma kii respecté wul kenn. Hmm. xam nga euh, Aliou Sow dafay nourri li ñuy wax benn complexe d'infériorité boo xam daf ko yóbbu ci benn benn égo surdimensionné boo xam ni boo jëflanteek moom rek di nga xam ni kii maanaam du ko neex a defal hmm. la preuve. boo seetee néew na maanaam ñu bari di ko approché ci leader politique yi. parce que bu fekkee nit ki dafay nuuri benn complexe d'infériorité maanaam boo jaxasoo moom rek lim mu lay njëkk a wan mooy boppam. te ko wan sa bopp rek mu dellu ginnaaw. loolu bokk na ci saba bi xam ni moo tax nit ñi maanaam daw ci parti bi beneen bi mooy. mais mais dañoo gis ne bi ngeen di génn bi dafa mel ni benn collectif ñoo génn. gis nañ sax ngeen signé benn communiqué. waaw en fait moom laa lay leeral xam nga dama la bëgg defal jeunesse un peu. waaye boo seetee boobu bokk ñaareel boobu bokk na ci tax ñu génn ci parti bi mais boo seetee aussi am na ñoo xam ne génn nañ ci parti bi parce que dañu gis ni maanaam mm, kii di président Aliou Sow daf dul sàmmonte ak kàddoom. ndax ci njalbeen lim nu xamal mooy moom réew mi rek ko ko ñor nekk na fi ministre nekk fi député nekk fi lépp donc soxlaatul lu ne mel li koy itteel mooy naka lay def ba maam jot ci bopp réew mi ngir mën a soppi li fi ne. loolu moo emporté suñu conviction ñu ñëpp. ñu ànd ak moom ci dynamique boobu mais li li li maanaam première signal bi bi ñu wan ni moom li xam ni moom la ñuy wax bokkul ak ni muy doxee mooy en 2019. en 2019 dañu xëy rek bis. mu woote benn kii ni dafay wax euh, benn conseil national ni dañuy waxtaan parce que dañu war a soutenir président de la république mais xanaa boo àndee say nawle ànd ak sa moromi gor ñii di boromi xam-xam amub yar ami teggin am xalaat ci réew mi am taxawaay la gën a yell mooy nga woo leen ci waxtaan soog jël décision waaye bi mu nii woo boo fekk na mu entériner sa décision avec le président de la république ba ah, ba dem maanaam rencontre ak le président président yëkkati alal ju bari jox ko maanaam pour maanaam def les formalités pour mën a dem ci moom loolu mais notoire ñëpp xam na waaye booba xam nga boo nekkee ci mbir mu nekk ko bokk kook ay ay nawle am na ci loo xam bu xewee doo xëy rek daal di fëgg say say kii da ngay toog jiima càmbar loolu lan moo ko sabab ak noo mën a saafaraa loolu bu fekkee mën naa nekk. man looloo ma fa bawaatoon ma toogandi fa ñaxam ni ne dem nañu ma ni leen ñun bu ñëpp xëyee dem kon musiba am bu fekkee danoo ne ci mbir di ko ànd ay ati ba mbir mi toll am fa mu toll euh, kii xam ni moo jiite ci bopp bi am nu mu doxee nu wuteek nu nu gisee ak la tax mu ñu àndoon ak moom las la lay yàlla mooy bu kenn gedde dem nanu toog ci biir jiim koo régler suñu bopp gis nga loolu yàllaa ma tiim def nañ une réunion boo xam ne ni daanaka dañ koo sëpp sëpp sëpp ba bët yi commencé xonk man yi ñi xam ni ñooy wax man leen euh, maanaam mm, kilifa manees nanoo wax ak moom wax ko li nga bëgg a wax te doo ko jam ci loola. mooy 2019 ba nu jógee ca loola. man leen kon nañu continuer di dox ak moom xool waaye boo seetee booba ba léegi. ah da ngeen yaakaaroon na saafara dina ci am. dina ci am dama njortoon ni bu ñu jógee ci loolu remarque yooyu bu ñu ko defee dina jubbanti doxinam waaye dañu gis ni dafa gën a enfoncé wu ci attitude coupable boobu. ba pare toog benn moment boo xam ni daanaka parti bi amul benn réunion ba élection ju waaj a jubaat mu daal di commencé yëngal mooy élection locale yi. élection locale yi sëñ Abdou Khadre man mais mais mais maître bala ñuy ñëw ci élection locale yi. 2019. Mhm. Mhm. Euh, Aliou Sow bi mu demee ànd jeeg président Macky Sall. Mhm. après bi élection yi passé dañu gis ne dafa mel ni lu delluwaat ci opposition bi di wër plateau yu bare bari doon doon song président Macky Sall. waa xam nga lu ko sabab xam nga bu fekkee maanaam xam nga am na ci ay gor yoo xam boo àndee ñoom di liggéey. nga xëy effectivement ngir say intérêt personnel nga ni bàyyi leen fa wuti président ngir intérêt mais suñu borom moo wax ci alxuraan ni maanaam ni maanaam euh, workat. ay pexeem du jub mukk la mu buggoon la ko taxoon a jóg. loolu mu jur sotti. moo waral ca ginnaaw ba mu maanaam commencé di sànni ay xeer ak wax jëm ci président de la république parce que lam yaakaaroon. amul amul loolu moo ko sabab waaye gis nga yooyu yëpp bi mu amee bi nu ñëwee ci élection locale yi wees. élection locale yi man sëñ Abdou Khadre sama yéene doonul woon dem élection boo seetee bi muy dugg ci élection yi day ba juróomi weer moo des ci ci mbir mi waaye sama ngor mayu ma woon ma toog ndax dama ni man bu fekkee ci parti bi dañ maa jël def ma porte parole nationale maanaam euh, parti bi ni day dem élection la gën a yell mooy ma dem maam xeex ngir la visibilité du parti ba may dem xam naa xel ni maam xëy rek doon maanaam meeru Taïba Ndiaye ci juróomi weer lu jafe lay doon. waaye sama alal jama bool jo ma ma am lépp. toll ci daanaka lu mu jé jéggi jéggi na juróom fukki million yoo xam dama koo jël investir ko ci population yi. ngir seen i jàppale leen ci seen i seen i activités loolu lépp ak maanaam boole ko un projet bu clair. boo xam ni wóor na ni buñ ko mettroon en œuvre maanaam gox ba ma nekk dina soppeeku ci lu bari te loolu waa gox bi ci boppam ñoom ñoom dem ba rendre ci compte. loola. la tax waaw loola la la ko la tax ma ma def ko mooy c'était pour permettre en fait donc parti bi am visibilité au niveau régional départemental et communal. et loolu je l'ai réussi tey jii au niveau de la région de Thiès au niveau du département de Tivaouane au niveau de la commune de Taïba Ndiaye amul kenn koy wax maanaam MPD liggéey te xamu ko ndax man. xamul tax ma def ko. parce que bu fekkee li xam ni moom la dëgg la mooy man sama yéene mooy fexe ba président Aliou Sow nekk président de la République war na maa fexe ba Sénégal ñëpp xam ko. Hmm. loolu moo nekkoon loolu moo doon sama objectif. Hmm. mais gis nga Abdou Khadre li gën a naqari ci li ma gën a naqari ci mbir moom gis nga bi ñu paree élection yi wéy ak alal jën ci def. local euh, local yi ak doole jën ci def taxawaay bi perte de temps et tout bi résultat yi génnee Aliou Sow il n'a même pas daigné jël par maanaam téléphone am ni ma jërëjëf wala waa góor. dégguma ko waxuma santuma gërëwuma encouragé wu ma félicité wu ma noonu non defal nank rek defu defu non seulement defu ko ci man defu ci ko keneen koo xam jëloon na responsabilité boobu ñu bi loolu wooyee man maa jël sama téléphone ni ko président puisque dañu génn ci ay élection li gën a yell mooy nanu woote une réunion d'évaluation ñu càmbar ci liñ demoon ana lan moo ci baax ak lu ci bon lan moo nu tee yenn objectif yi naka lañ kiy rectifier pour que élection yi di ñëwaat ci suñu kanam ñu mën koo gën a defar mu ni waaw waaye ba fii may wax yu fu ca dara ba mu ba xam ba bis mu xam ne élection législative jigéen na mu woote benn réunion siège boo xam daanaka comme nam daa doxale rek noonu lay doxale mooy bu ñëwee def conférence jàpp nañ la muy def université loolu la war bu jàkkaarloog ay militants it loolu rek la war mooy yël kàddu wax ba géex maanaam romb nit ñi jàll toujours pour respecter discipline parti ma dem ci réunion boobu mu ni dafa bëggoon ñu def parrainage parce que parrain euh, kii noonu tu élection législative dafa laaj ay parrainage ma ne ko par département wala par commune ñaata nga soxla ci parrainage ña fa daje ñëpp man ak samay nawle ma ne nag kenn ku ne jël engagement ferme bu demee ci commune am mu fexe ba am mille parrain man xoolal la ma wax gor ca wax ja damaa delluwaat Taïba Ndiaye ci diirum ñetti fan pour wax la nit ñi fan ma teg diirum ñetti fan ñu jox ma mille parrain yoo xam ni amul doublon amul dara ñoo xam damaa xam seen i wayjur xam leen kenn ku ne ci loo ne ak loo newul ñu jël seen i carte indil ma ko ma def ko te nañ ko waree dellu jox ko yoo yaakaar naa sax euh, preuve bi mi ngi existé ba léegi. waaw mais maître bi waaye dimbali ma rek bala ngay ñëw ci loolu. yéen bi ngeen jógee ci local yi. taxawaay bi ngeen ci wanee ak seen moyen bopp. woowu leen téléphone wootewul réunion dévaluation bi ngeen demee ba ba jub élection législative yi mu woo leen benn réunion. Mhm. mais bi ngeen dajee ci réunion boobu. Mhm. ndax waxtaanee ngeen fa élection locale yi. déedéet waxtaanu élection législative daanaka amu ca la ko yitteel mooy maanaam li xam ni moom la simm te yàlla dogal li mu dogal ci loolu. Mhm. Euh, gis nga sëñ Abdou Khadre man la ma war lépp def naa ko. mille parrain laa ko jox. mu jël bopp mais li ma gën a naqari mooy bi nu waxee ci loolu ba pare ba ma indi sama mille parrain man maa ngi doon xaar. mu woote une réunion pour ñu xool naka la ñuy dugg ci élection yi mu am ànd ak coalition wala yéen mu woo ma personnellement këram ni ma yàlla ma tiim de ni ma man de élection yii ñu jub xam naa dootu nu mën a def maanaam dem seul il faut ñu dem dans le cadre coalition ma ne ko yow yaay yor boppu parti bi noo ko xalaate wooteel waxtaan ñu waxtaane ko mm. ñu xool kan la ñuy àndal ak naka lañ koy defee nekkatey man fi may waxe ak moom ci loolu mu ni ma moom ci wax ci jataay boobu mu ni ma moom ak fu man di dem parti bi maanaam proposition bu mu am yow sa jëmmi bopp lay jiital ci wàll woowu ndax man nekk naa fi député nekk fi ministre daanaka soxlaatuma ko ku mel ni yow ak ñu mel ni yow ci parti bi lay jiital nekkate li muy wax ak la xam ni moom la nar c'est diamétralement opposé fekk na mu waxtaan ak maanaam kii ñuy wax maanaam Pape Diop jébbal ko boppam ngir des intérêts crypto personnels ba entériné maanaam benn list boo xam ne nii ca ginnaaw ba la yëg ni man maa nga ci biir liste ba waaye maa ngi ca quinzième position ma ni waa euh, man naa topp parce que man du ma xëy rek di wax damay topp mbir ba xam ko may ma ni mu fax mu wax ma ci jataay boobu ni ma dama wuti sa dossier ma dem wuti sama dossier et tout ñëw bi ma ñëwee euh, fekk ko siège Pape Diop ma laajte ko ñun ma ñu ci kaw bi ma demee foofu sëñ Abdou Khadre ma ko dama ñëwoon doon la indi sama dossier fekk ne fu man ni ma ko fekkee rek laa xam ni am na nu mu jëf ba noppi parce que nag wax dëgg yàlla borom mi xel lanu nit ki am na nu muy toogee yow bu bu la nungul sax xool ci ñaari bët nga xam ni kii am na lu mu lay làkk te booba Pape Diop mi ngi toog mais li gën a jafe sax pour wan la ne kii du kun mën a dink am réew ndax ku mën a jébbal boppam doomu aadama amul fullaak fayda défendre maanaam ñi muy àndal parce que jotaay boobu dama ñëw asalaamaaleykum dugg ci biir nuyoo commencé wax ni ko présent je mu si déplacé pour deux raisons d'abord c'est pour vous donner moo dossier mais éventuellement vous donner une liste complémentaire de parrains au cas où nga soxla ko 205 parrains yu ma indiwaatoon ci mille yi ma joxe woon pour te ni maam ni ko teg ko fii bu fekkee dafa am doublon ci yenn yi nga mën koo soppi mais tàmbaliwu ma sama kàddu rek Pape Diop fël sama kàddu ni ma boo paree mën ngaa jóg dem waaye imagine lu mel noonu waaye man yar bi ma yar ma ma def ci kawam. waaye mënoon na maa def nii doom ni xale yi tey maanaam maanaam maanaam waxee ak moom ci benn ton waaye defuma ko yàlla def ma suuturaal ci jamono jooju dama ko xamal rek ni ko monsieur le président moi je ne vous connais même pas et si je suis c'est parce que le président me l'a demandé te j'étais venu pour deux choses et pour vote information je suis le porte-parole national du MPD Liggéey waaye ci diggante boobu Aliou Sow non seulement n'a pas la parole pour effectivement leeral ni kenn man kat ci parti bi laa bokk lii moo ci sama taxawaay ak yu ni mel waaye yëmu sax ci loolu mooy bi Pape Diop di wax wax yooyu maam jëlu sax ma défense cest di xool naa ko ma ni waa mii kii ma bëgg man xeex ngir mu yor réew mi ku mën a jébbal boppam jaay boppam ci doomu aadama ngir effectivement des intérêts crypto personnels kii bu ma ko jugalee ci réew bu nu xeexee ba teg ko ci réew mi réew mi day sëngéem ci jamono jooju nag ci laa xam ni war nañu ci li xam ni moo taxoon ñu dugg ci parti bi ci la gën a ràññeeku ci man ci laa génn nag doon xaar ba xam ndax dina ma woo pour leeral ma lan moo sabab attitude boobu ak lan moo sabab mu dem jébbal boppam Pape Diop te yëguwu ci ak ñoom te li gënoon a yéen xanaa xanaa yéen euh, yéen parti bi MPD liggéey bi ngeen di dem ci coalition euh, ndax ndax Pape Diop dafa am parti bu tudd bokk gis-gis. Mm-hmm. ngeen amoon parti bu tudd MPD liggéey. Mm-hmm. Euh, pour coalition il faut que ngeen ñëw ngeen dajee ndax les parti mooy ñëw yéen itam seen parti ñëw ngeen tudd coalition bokk gis-gis euh, est-ce que ci investiture yooyu ñu naan fii la ñu dugal diw fii moo dugal diw est-ce que loolu amoon na benn waxtaan bu dox yéen diggante cadre MPD liggéey ak cadre yu bokk gis loolu moo amul demal ci njëlbéen damay leeral ça dama la wax ni la wóotuwul benn réunion pour wax ni ñun kat finalement boo ko gis-gis la ñuy àndal ah te buñ àndee ak moom it nii lañ fas yéenee doxale saa dañu xëy déggu na dama ci jataay boobu ma dem noonu. maanaam ca bërëb ba doon ak maanaam discipline boobu man ci laa jàngatee ci la ma kenn ci ñun xamal ni ma maître Abdi jërul ngay sonal sa bopp kii jaay na boppam ba pare. te maa lay wax maanaam maa lay jox list authentique bi xam ni moom lañ investir wallahi wal kitaabi ci la ma jox list bi ma xool ko list bi liste bi ma gis ni maa ngi quinzième position ci lu ma yëgul man. Hmm. waa ma ni xanaa liste buñ koy choisir am na ay critères objectifs yi ñuy xool d'abord man li ma jàppoon mooy doon na laaj ñu woote réunion boo xam ne dañ naan ah ñun kat bëgg na nanoo maanaam bokk ci élection yi diw la ñuy àndal bu àndeek moom it nii la defee choix yi choix yi yaakaar na li ci war a jiitu mooy ñu fal ñoo xam ne nii seen xam-xam seen man-man seen jikko dina mën a taxawal réew mi ca pencum réew ma man ni waa kon critères yi lii la war a doon mooy ci en fait d'abord ñu xool ancienneté xool également statut bi nga bi nga occupé ci poste bi xool maanaam ndax yow sa profil ci xam-xam ak dayo ak jikko mate na ko profil bi mooy aussi au delà de ça ma ne aussi nanu xool maanaam ki xam ni maanaam moom la ñuy jiital maanaam élection yi ñu wees ndax bokkoon na ca ba mu ca bokkee ban résultat la def ci parrainage yi ñu wees maanaam ban liggéey la ca def yooyu yaakaar naa moo doon des critères objectifs yoo xam ne waroon nañ caa waxtaane tànn ña xam ne ñoo gën a jege loolu ñu jiital leen ngir intérêt réew mi waaye yooyu yëpp amul bi loolu amee nag wax dëgg yàlla ma ne nag yell na parce que man fa ma dëkk nit ñi dañ maa jox bopp wóolu ma fonk ma njort ni ci war a ñi war a defar réew mi ci laa war a bokk kon ñooña jël seeni kàddu jox ma loola la la la war mooy bu may ànd ak nit ma ànd ak moom ci àndub nawle ci ànduk gor ak morom ma ba ma mais est-ce lii la dal nii. Mhm. am na ñeneen ñu mu dal. <laughs> xoolal du xaaj ju jeex kaay ne ah est-ce que xam nga docteur Aliou Khoudia Diaw mais est-ce que ci parti bi la bokkoon laaj ko lu tax mu jógee ci parti bi xam nga docteur Aliou Koudia ñëpp a ko xam. du n'importe qui. borom xam-xam la boromub yar la boromi teggin la ana lan moo sabab. mu bàyyi ci parti bi te yëmu ci moom docteur Abdourahmane Leye laaj ko lan moo sabab mu génn ci parti bi. docteur euh, Aw. lan moo sabab mu génn ci parti bi. la liste elle est longue mënuma koo lim mat nañ trente personnes yoo xam c'est des hauts cadres c'est du ay nit ñoo xam ne dañuy jàngatuñ ñi de dañoo jàng am ay lijaasa am man-man ci réew mi di servi réew mi de notre ci beneen facette. ñooñu ñoo boole woon seen i kàggu que kenn ku ne ci ñun man ku mel ni man damay damay repérer maam ñi xam ni jàpp na ni ñii bu leen jiitalee ci mu réew mi den bokk ci ñi koy soppi ci ay jikko yu rafet. ñooñu ñëpp mujj nañ xëy bàyyi ñoo ma njëkk a bàyyi parti bi. Ah, ñoo ma njëkk bàyyi parti bi ñooñu ñëpp xoolal bi ñu deelee décision pour man génn ñoom ci seen bopp ñoo ma woo wax ma ni ma Maître Abdi yow rek doo démissionné. ñun ci suñu bopp di démissionnons ensemble parce que maanaam formalité boobu il faut ñu def ko ci leen def collectif des démissionnaires du MPD liggéey montrer que en réalité objectif yi taxoon ñu ànd ak maanaam président Aliou Sow objectif yooyu moom daf ko teggi maam daf nu war ci kàddu. xanaa parti bi daanaka kenn desatu fa noo xamante ne xoolal parti ba. dara il faut firiwul dara. parce que la preuve man Aliou Sow maa ko ëpp légitimité fa ma ne. man tey Taïba Ndiaye en moins de cinq mois j'ai obtenu dans une élection compétition boo xam ni ña ma fa fekk kenn ku ne lu mu néew néew def na fa vingt cinq ans di ko wut ma mën a ñëw gagné ñeenti bureau de vote wax ma non pas bureau centre la centre de vote ñeent am mille am mille soixante treize voix les PV sont là nekk ci dynamique boo xam ne nii maam tey jii fii may wax ak yow man je suis bon boo maam boo xoolee ñun ñu ngi ne xuma quatrième ma mais ci ay maanaam différence yu néew la ay ay fukki carte ak ñaar fukki jarawee lu tolloog 300 cartes lay doon yaakaar naa bu ko matul kon maanaam dafa seere mais li am solo ba am solo mooy man le le le score est honorable te je me suis érigé en une alternative crédible au niveau de la commune de Taïba Ndiaye tey jii y' a un mouvement rëccu ki nu fal. Mhm. par le truchement du hasard la toogee. mais nit ñi dañ koo weddi fi mu toll nii. defal enquête mais tax nga ne Aliou Sow man tey jii laaj ko bi mu ñëwee sama réunion d'ouverture mais la fa fekk ci ay mbooloo mais ça dépasse les milliers de personnes te ñu xoolal ban fa toogee xam ban heure la fa ñëw 15 heures ba 23 heures une heure du ci la ma wax moom ci jëmmi boppam ni ma ba may def politique ba léegi musuma gis mbooloo mu toll nii. dama naam dogoo nii nekk toog ci place maam lu toll ni ci kii te demunu xam nga élection da ngay gis ni maanaam ñu ci baree bari bu ñu wootee mbooloo mbooloo mi bu ñu toogee ab diir gisuñu wax mbir yi tënku rek mm-hmm. dañuy dem mm-hmm. waaye ñooñu fan toog lan toog ba mbir ya jeex mm-hmm. ma gis ni moom ba mu demee dëkkam lu tolloog 500 personnes sa génnuñu tey am na ay information yu leer ni moom ci jëmmi boppam mais ñooñu dañ koy xalaat ci moom dafa nekk nit koo xam ne yëgul kenn dafa rëy te loolu c'est la vérité cest à moom son son son problème mooy dafa am un égo surdimensionné boo xam ni complexe d'infériorité bu ne ci moom moo ko indi. d'accord mais est-ce que tey amuloo dëgg ci kawam. Mm-hmm. bi bokk gis-gis demee ñoom tamit jébbal seen bopp Macky Sall. waaye ji ban ni loo ca dul ba ca boo caa yaa ca man dama ni man duma koo xam damay xëy rek di wax. man je suis respectueux des populations sénégalaises maam ruus naa taxaw ci wala toog ci ab émission di wax loo xam ni safaan maanaam safaanu dëgg la gis nga dama wax fii ñu woote ma ci benn émission man leen gis nga kii di Pape Diop ak Aliou Sow lu ma leer moom te xam mooy seen liggéey bi yépp Macky Sall ci moom lañ koy jëmale. te li gën a ñaaw xam nga gor du denc ci kaddu. gor du denc ci kaddu bu fekkee ñi xam ne ñoo ŋànk réew mi maanaam ñoom ñoo sañ taxaw ci maanaam publiquement wax nit ñi ni leen. ñii xam ni moom ñii Pape Diop taxaw na wax carrément nii am na ci parti yoo am c'est des c'est des c'est des des candidats fan fantaisistes que maanaam Macky Sall la ñuy liggéeyal waaye yow ñu dox ay ñetti fan ñeent yow nga dem jébbal sa bopp Macky Sall ci contexte boo xam ne nii ñala la voté la tax ñu voté la mooy danoo njortoon ni yow da ngay opposé wu Macky loolu war la tudd moom la les traîtres maam baat yi baatu olof la ak baatu nasaraan rek maanaam olof mooy wax maanaam dan maa wor bu dee nasaraan da koy tuddee traître moo tax ñoom bi ñu génnee eh, ci télévision yi jël eh, toog ci maanaam nu ñu koy waxee toog ci maanaam eh, sijaada di waat naan Sonko li muy wax maanaam ay ay kàcc la daal di wax ni je n'aime pas les maçons mais dama génne un communiqué ni leen certes je n'aime pas les menteurs mais jën n'aime pas aussi les traîtres te man kàddu gi ma waxoon yo maanaam euh, histoire jox na ma dëgg. Ah, bi nu demee ab diir maanaam maître ñu leeral. Euh, Ousmane Sonko bi mu waxee ci biir campagne bi. mais am na coalition yoo xam ne Macky Sall la ñuy liggéeyal. Euh, Aliou Sow dafa toog ci Sidiada. wax ne Ousmane Sonko li mu wax méngoowul ak dëgg. yow nga ne yàlla bëggul fenkat mhm. waaye yàlla bëggul kuy wor. tabaarkalla la tax ma wax ko xam naa ko. Ah. la taxoon ma wax ko. mooy que man xam naa bu baax ni ñii Macky Sall lay liggéey. kon Ousmane Sonko loolu mooy sabab bi tax li bokk na sabab bi tax ma génn ci parti bi mooy dama xam ni objectif yi ñu tegoon ñun ak ñoom seen agenda personnel dafa wuute. mais uh-huh. Macky ma xaaral la xamal la leen gis nga Ousmane Sonko. Ousmane Sonko c'est pas n'importe qui Ousmane lu xew ci réew mi suba ba ngoon jot xam na ko. ah maa la ko wax fii may wax yow amul lu ko ump ci réew mi luy gars yi di xalam. xam na ko te it maanaam wax jam wax ba mu paree man maa ñëw dëggal ni li mu wax dëgg la te histoire jox na ma raison man damay profité sax ci ci ci ci ci loolu wax ni Ousmane Sonko kenn ku ne xam na ni projet bi mu yor c'est pour le salut du peuple sénégalais maam ku waxal te yàlla rek tax maam jël sa loxo sañ koo teg ci kaamil wóor na leen li muy wax lépp njariñu réew mi ci nekk. moo tax man damay wax ni toujours plateau bu ma dem damay wax ni Ousmane Sonko sékkuma ak moom dara. xam ma ko sama téléphone téléphone mu newu ci musuma toog ak moom xam ma sax ñu ko jege lool waaye dama yëg ni maam en tant que citoyen de la République du Sénégal boo xam ni dessein mooy le salut du peuple sénégalais bépp concitoyen bu yor un projet phare pour le développement de ce war téef la ci kenn ku ne ci ñun ñu taxawu ko aar ko dimbili ko ba li xam ni moom la ngànk réew mi mën a aboutir moo tax ma wax ni je lance un appel solennel au président de la république mu éviter à ce que ñu def di di def ay manœuvres pour detteel wala nërmeel ku mel ni Ousmane Sonko ak ñu mel ni moom ci réew li may lu tax ma di ko waxaat mooy la xam nga olof yi nee nañ ku ndëmin rey sa maam. boo gisee lu ñuul da ngay daw. quand tour noir à tué ton oncle la sagesse te commande de te mettre en garde contre tout bête noire même si elle était douce xam nga tax ma ko. Senghor fii la fi nekkoon ak Mamadou Dia. Sénégal yëpp xam ni Mamadou ja li ko yitteel mooy réew mi. nan lañ ko mën a soppee ci anam boo xam ni kenn ku ne ci ñun dina yëg ni ci Sénégal nga bokk tey mu am un développement économique boo xam ne nii maam dina tax maam réew mi stable du point de vue économique ana nan la Senghor def ci ay pexe nërmeel ko jiiñ ko loo xam ne wóor na dara amu ca nii lan defee ak maanaam lii leen bëgg a defee ak ausman son ko loolu nag sénégal yi ñoo war a jël seen bakken teg ko ci gar ko fuñ ko laale na ñëpp jóg génn ci réew mi maam defendre ko parce que nit ki boo koy teg ci yoon wala nga bëgg ko nërmeel da nga koy teg ci yoon moo ci ay preuve concrètes yu leer waaye boo xëyee rek bëgg def say manœuvre bëgg ko detteel ci loo xam ne amoo benn preuve loolu sénégalais yi war warteef la ci ñoom ñu taxaw nekk un bouclier pour que loolu bañ a am la daloon du Dia ba bépp sénégalais tey di ko ci man mi xam ne fekkewu moom bisam mbiram man bi ma ñëwee xool histoire am mais man dama am lu ma naqare ci sama xol ah, Mamadou Dia Mamadou Dia Mamadou Dia boo koy seetaan sa sa xol day tooy ndax da lay wër ni kii xol ba dafa feesoon dell. ci réew mi jëm ci kanam da nga jaarale moom fañ jaaroon ak moom. moo leen am yéene def ko ak Sonko. na nit ñi taxaw temm. ba maanaam lu mel noonu du jàll ci réew mi. Sonko nee naa la je le réitère xam ma ko sekkuma ak moom dara te dëgguma ci parteem xam ma sax ñi ko jigee lool. Hmm. waaye dama gëm ni man maam je suis un citoyen de la république. te mon dessein c'est de effectivement défendre les intérêts de cette république même au prix de ma vie et que loolu moo la war yow sëñ Abdou Khadre moo war mboolem koo xam ni citoyen république nga d'accord kon léegi yow euh, maître Abdinar Ndiaye euh, avocat à la cour yow kon jàpp nga ne Ousmane Sonko am na dëgg ci kaw Pape Diop ak euh, kaw Aliou Sow waa mais lu ni lu ni lu ni fang kenn du ko jeex sëñ Abdou Khadre la vérité on la cherche mais l'évidence elle saute aux yeux nam ko waxee woon noonu la amee yow dégg nga ni di nga génn ji jël décision di mer waaw kilifa gu toll ni Pape Diop toog ci am télévision yi wër ko muy wax ci loo xam ne yow yaa jël sa décision personnelle ana lu sabab yow ngay wax ba daanaka soxol daanaka tooy na ci mer di mer mooy lay wan ni yow la ngay jël sa yow am na lu ko sabab mm-hmm. gis nga dama ni nit ñi dëfunu xam nan bu baax ni ñu ci bari ci réew mi ñuy yëngu réew mi taxu leen a jóg. mais Pape Diop euh, suppléant bi sax. Euh, ah waaw suppléant bi nee na nee na moom dong la engage nee na moom waaw même même bokk gis-gis France. waaye déggoo li ma la xoolal xam nga fu mu jëm. njortu naa ni sax boo moytuwul ñu destitué ko ci parti boobu. man ci li ma gëm man maa la ko wax. li ma gëm. waaw léegi Pape Diop mën wax ne sax politiquement. Mhm. wàllam presque wéy na mais euh, Aliou Sow mi nekkoon ci wet gi moom tiim est-ce que moom tiim du am lu mu ko mën a yàqal ci Sénégal. waaye déggoo li ma la moom mbiram jeex na moo la ko xëy gëm ko. moom Aliou fii ci senegal du fi doon dara parce que moom jàpp na ni amul fulla ak fayda ak ngoro maanaam li muy sàkk mu sàkk ko ci anam boo xam ni dafay démocratique saa jàpp na ni moom pour bu mu doon dara ci réew mi faw mu def la ñuy wax ay diil te loolu musiba la saa nit ki da ngay gëm yàlla xam nga man wax naa la fii nee naa la sëñ Abdou Khader man falu ak ñàkk a falu ñoo yem ci man billahi wal kitaabi mm. maam falu taxumaa jóg maam ay poste bu ma taxoon jóg mën naa def ne def ni gars yi def man ñu fal ma ak ñu ñàkk maa fal ñoo yem ci man xam lu ma gëm man. men man men man Abdou Nary Kott war na maa góorgóorlu ci réew tabax loo xam ni samay moroomi sénégalais denc mën a gis seen bopp te ci loolu ci laa ne. man entreprise laa yor. juróom ñaari doomu aadama lu mu néew-néew ma weer bu dee ma def yitte pour fay leen. waaye ñooñu euh, maanaam la tax ma di ko def mooy pour réew mu jëm kanam. bu doon sama poste rek moo ma ñor mën naay maanaam di jël kenn wala ñaar ànd ak ñoom di liggéey. mais man loolu dama jàpp ni xaalis ak ay am-am ak i man-man amul solo àdduna li fi am solo mooy def loo xam pour la postérité mooy def loo xam ne bu ëllëgee kenn du ko fàtte. waaye jël sa bopp maanaam lu dul ay intérêt personnel ay post ak alal joo am tax nga jaay sa ngor jaay sa diine dara jëru ko caa. mais maître yow euh, bi Aliou soo demee ci Pape Diop bokk gis-gis si nga génn avant élection yi si nga génn avant élection yi euh, da nga xamoon ne. du coalition bu sénégalais yi wóolu wala ñu ëpp ci sénégalais yi bu ñu wóolu ndax euh, plus forest mën nañu wax ne moom la demee danga nga jàppoon ne du coalition bu sénégalais yi wóolu wala danga jàppoon ne coalition la boo xam ne jàpp nga ne Ousmane ko wax moo am Macky Sall lay euh, lay liggéeyal loolu moo tax euh, nga génn ak tamit bi nga génnee ci gox bi nga dëkk di Taïba Ndiaye ñu xam ban am ban daayo nga am foofu danga leen a wax ñu bañ a voteel coalition boobu wala da nga da nga génn rek taxaw. waaw effectivement bi ma génnee xam nga nit ki da ngay cohérent bi ma génnee ci parti bi mais man dama am kilifa man est-ce xam nga ni sëñ Abdou Khadre du ma yëkkati dara ci politique tant que dem ma ba tundu ba Ndiaye waxtaan ak chef de village yi waxtaan ak imam yi waxtaan ak maanaam population yi ba nungul ma ko ma soog koo feesal ca kaw man ku am kilifa laa. du ma yëkkati dara tant que diisoowu ma ak ña xam ne ñoo ma yilif te am yéene jàppale ma ci li xam ne moom laa taxawal. ba ma demee ñoom ñoo ma xamal ni ma yow bu fekkee réew mi moo la tax a jóg te gis nga ni ñii ñoom jël nañ seen bopp jaay ko ba pare lu mel noonu la gën a yell mooy nga génn ca loola. ci laa génn ca loola ndax dama gëm ni ñii liggéeyul ngir réew mi waaye dañuy liggéey ngir seen am-ami bopp dañuy liggéey ngir ay post yu ni yu ni yu ni occupé te loolu taxumaa jóg. ah ok d'accord léegi euh, élection yi gis nañ euh, wàllu Sénégal ak Yewwi résultat yi ñu am. presque benn Bokk Yaakaar grande ville yëpp ak euh, grande ville yëpp euh, ak capital régional yëpp presque ñoom dañ koo ñàkk euh, ban ban jàngat nga ci am. waaw foofu jàngat bu leer d'abord xam nga sénégalais yi li mu wane rek mooy maam li ñuy wax transhumance mooy wor. comme ni ni waree nii. ñoom loolu bëgguñu ko ci réew mi maam transhumance parce que boo seetee ñu àndoon ak Macky Sall ñi àndoon ak démb ak ñeneen. xëy bàyyi ñooña ndax alal. topp maanaam Macky Sall ñooñu dañ leen a lamine fan dëkk. mooy jàngat bi njëkk a leer beneen bi mooy maanaam dund gi nit ñi di dund ci senegal métit yi ni mu fa mu toll nit ñi fësal nañ ni maanaam lu ni mel maam war naa dem ci réew mi. tey jii sëñ Abdou damay wax ni man ak yow xëy na ak ñeneen yàlla am na sutura su leen defal soo xam bu ñu xëyee den lekk ba suur naan ba màndi solu li mënta ñàkk daje ci ñoom. am na ci ñoo xam ne ci réew mi ñu ëpp ci ñun ci ñun waxuma sax maanaam dakaar dakk ci biir dakaar rek tey jii foo demee fu mel ni Médina wala fu mel ni Fass wala Gueule Tapée ak ñu mel ni Pikine ak yu ni mel banlieue bi mais am na ci ñoo xam ni sëñ Abdou Khadre bu nu xëyee ndékki sax duñ ko def dañuy fekk seen morom yor kaasub kafe wala kaasub meew ñu séddoo ko ak ñoom mburu mam yor ñu dagg ko pour wan niveau maanaam pauvreté bi fi mu toll ci réew mi te ñi toog ci kaw yëgu na ni loolu mooy li nit ñi di dund maam yëgu na nii ci réew mi am na ci ñoom bu ñu xëyee lekk ak nan da am na ci ñoo xam ne ci ñun bu nu feebaree du nu faju noonu la ñuy maanaam feebar ba gañ leen ba lor leen loolu bala nga ko xam da ngay nekk dans le Sénégal de profondeur am na ci ñoom dañuy tawat billaahi wal kitaab bi ay reen la ñuy jël di ko jàmb di naan. duñ mën a dem hôpital parce que ticket bi rek waxuma fay paiement mooy médicament yi. waaye or ordonnance baa yu ni mel. waaye ticket bi xam ni moo leen di permettre. ñu mën a dem hôpital amuñu luñ ko fayee. te seen ngor mayu leen ñu tàllal seen loxo. loolu ñun jiite xamuñu ko yu mel noonu yëpp boo ko boolee gis réew mi ni muy doxee nii. ak njëg yokk ak njëg ni mu yokkoo. nga yaakaar ni nit ki ne ci situation boobu ñu ni ko yow maam élection yu jëm ci nga mën a fësal sa kàddu. ngir wax ndax ànd nga ak ñi fi ne ni ñuy doxale am déet ñooñu xam nga ni bon la ñuy fësal la gën a leer mooy que ni ñoom àndunu ak doxin wi te loolu moo feeñ moo tax ma ni ñu ñu jiite war na noo seetaat bu baax ñun yore réew mi te Sénégal xamalul may sens nit ñu mooñu ci diine daf nuy may duñ xaru nit ñu mooñu ci diine tax na duñ jël ngànnaay di xeex parce que kenn ku ne ci ñun ci sa fort intérieur jëm nga ni boo reyee sa morom yow safara mooy sa kër ëllëg. mais maître sa aada mayula la ko. d'accord mais te nit ñi fi ne jiite yëgu na ni loolu moo tax nit ñi di noppi noo tax nit ñi dal. d'accord mais maître yow wax nga ne euh, dund gi metti na. Euh, ndóol gi jéggi na dayo loolu bokk na si li tax waaw loolu bokk na si li tax ñu sanctionné président Macky Sall est tey jàppoo tamit ne euh, ñenn ñi jàpp ne dafa mébét troisième candidature ah ok dama ni troisième critère bi xam ni moo déterminant ci maanaam élection yu ñu jëm mooy gëm nañ ni ñi ñu wees gëm nañ ni maanaam bu ñu tegaatee maye majorité Macky Sall maam troisième candidature bii mu bëgg a def day jàll. yow yàggul dara élection yu wees. ñaata député la am set député. waa ko am 127 député ci diir bu gàtt. ñala la faloon. dindi la jox la ñu mënoo sa am maanaam 83 député cela veut dire que ni ñooñu li ñu bëgg a wax mooy da la bëgg a wax ni la. loolu ngay mbébét di ko ruumu ndaat ci sa biir danoo bëgg nga teg ko ci suuf te man wax naa je kii konk que ni fii ci réew mu Sénégal un jur sérieux bu mën a taxaw wax ni président de la république mën naa toogaat fii ci réew mi. ci wàllu yoon. ci wàllu maanaam mandat ci présidentiel. loolu képp ku ko wax. sa bakkan dong nga topp. si yoon wala moral. waaye ci wàllu non déedéet waxuma sa moral mais ci wàllu yoon. sëñ Abdou Khadre nga yaakaar ni université bële dañ koo tabax ci ay caaxaan ña fa ne dañ ñuy jàngal lanu jàngal ñun jàng lan jàng ñun fàttewuñ ko maanaam Sénégal dafay neex nit ñi di waxee parce que yow say intérêt moo nekk en jeu waaye doo wax mukk ngir intérêt réew mi man sama wax jii ana lan laa ci xaar xaaruma ci ak fal xaaruma ci ku may xeex xaaruma ci ku ma ci mere damay waxta rek te yàlla tax man ab juriste la ñu formé ma fan ma war a formé lan ma jàngal mooy maam lii ñuy wax maanaam interprétation d'une loi dafa am ay charte am ay normes xam nga maanaam bu fekkee fi ñuy interpréter sax mooy foo xam ni dafa leerul waaye ñun ci constitution bi ñu yore constitution bi dafa leer tellement ba soxlawul sa interprétation waaye dama ne admettons même. li l'hypothèse où ñu ni affaire yi leerul ma wax la ci règle yi xam ne mooy régir interprétation buñ ca delloo rek day wane ni président de la république Macky Sall mënta toogaat ci réewum Sénégal ma xam ma ma ma ko li ko sabab. boo demee ci ndeyu sartu réew mi. mooy la constitution du Sénégal article bi ñu vingt 27 dafa wax ni fii ci réew mu Sénégal kenn mënatu fee def ñaari mandat yu tegaloo. ñaari màndaa yu tegaloo waxul benn yoon ni mandat 7 ans. wala mandat bu 10 ans. wala mandat bu ans. te dafa am un principe général bu droit boo xam c'est sacro-saint buy wax ni on ne distingue pas la où la loi ne distingue pas maanaam kenn du saytul yoon foo xam ni yoon joxuñu fa ngir ñu saytu ko. article bi wax ni nul au Sénégal. Hmm. ne peut faire plus de deux mandats consécutifs. loolu dafa leer mooy ñaari mandat yu tegaloo fii ci réewum réew ci réewum Sénégal kenn mënut ko fee mandat cinq ans yu tegaloo la wala mandat déedéet daf ni mandat consécutif cela veut dire quoi que au Sénégal personne kenn ci ñun mënatu fee def ñaari mandaa yoo xam ne ni dafay tegaloo te wax naa la li koy corroborer mooy ce principe sacro-saint en fait donc du du droit bi wax ni ñu on ne distingue pas là où la loi ne distingue pas mais yemu ci loolu sëñ Abdou Khadre mm-hmm. maanaam bu fekkoon tey dañoo jàpp ni texte bi leerul dañuy dellu ci li xam ne moom la esprit de la loi mooy la sabab maanaam loi bi ni mel la ko sabab xam nga lu mu doonoon mooy limiter les mandats our Sénégal waaye boo demee même ci travaux préparatoires yi yi xam ni ñooy sabab ak a leeral ak a maanaam mën a gindi mboolem koo xam ni am na lu la lëj ci wàllu ni mel boo fa delloo la muy wane mooy que ni réew mi Sénégal maanaam bis mi ki jamono jooja tere nañ ku fi yoo toogati ñaari mandat yu tegaloo am na ci nag ñoo xam ni nii dañuy wax ni maanaam maanaam président de la République mën na fee nekk troisième mais loolu wax ko ca la ñàkk xam-xam yam wax ko mooy ñàkk maanaam ngor waaye mooy ñàkk gëm-gëm ndax président de la république avant muy nekk président de la république am na ñu ko jiitu woon ñoo ñooñu def nañ seen mbir ba wàll ba ba jeexal dem moom mii day def mbiram jeex kanañ ñëw kanañ ñëw ña koy doon ëllëg yàlla rek ko ko xam waaye war na te warteef la ci kenn ku ne ci ñun buy wax ci loo xam ne njariñu askan wi moo ca ne mu wax yàlla rek tax bañ caa seet tàngal ba muy màcc parce que gis nga ñu ci bari di wax ñett ñii rek la mooy ab naar fekk ab ragal ak lekkatum neexal te wax naa la fii ne la ñett ñi kenn du ci wax dëgg moo tax bu ñuy jox parole maanaam kàddu nit war nanoo seet ki mu doon nan xool histoire am nan xool fi mu jaar ñi mu sékkal lan lan xam ci moom. d'accord parce que am na ci loo xam ni koo xam ni lekkatum neexal nga jox ko nga jox ko kàddu mais du wax lu dul ko neex ka koy jox neexal ba. Mm-hmm. maanaam ab ragal ragal na ñu ndërmeel ko wala ñu detteel ko maanaam mu wax ngir bakkenam ak ki xam ne ab naar fekk la jikko la ci moom mooy wax naka sudul noonu ah. man nag nit ñett yooyu nekkuma ci benn te ñi ma xam man nañ koo seede man képp koo jëflanteeg man ci jamono maanaam réesu ma xam ma yëg na ni man nit ki dëgg laay do ak ci njub. d'accord léegi maître sànq wax nga ne troisième mandat bi bokk na ci li tax sénégalais yu bari sanctionné Macky Sall mais dañu gis ne cité religieuse aussi bennoo dafa ñàkk est-ce que du mbirum euh, loi proposition de loi jëmoon ci wàllum homosexualité loolu moo tax aussi. cité religieuse sanctionné mais sëñ Abdou Khadre yow xam nga tax man may sawar di ñëw ci sab jataay mooy damaa xam ni yow da ngay journaliste boo xam ni da ngay gëstu soog a wax gis nga ab journaliste dafa bokk ci ñi xam ni ñuy tabax am réew ci la bokk ndax ñooñu ci xar rek la ñuy la ñuy dox ak maanaam orientation yoo xam ne nii maanaam seen bopp taxul ñuy wax waaye réew mi tax ma man loolu laa détecté ci yow. waxuma ko ngir bëgg loola neex. man effectivement je ne jette jamais des fleurs. dëgg la de la vie mais dama ràññee ni heure bu ma toogee yow maanaam débat bi li koy ponctué yëpp mooy ci xam-xam ngay waxe moom ab gëstu bu leer soog a àddu. ma wax la ni la li nga wax lu wér la maanaam xam nga bi nu duggee élection yi. maam bokk na ci li xam ne thème de campagne yi mooy homosexualité te homosexualité mooy mbirum góor jigéen. mbirum góor jigéen moomu am na ci ñu def des communication wax ni maanaam am na des lobbying étranger yoo xam ne ñoo ne ci ginnaaw ñi xam ne ñoo ŋànk réew mi seen yéene mooy dëggal ak doxal lii ñu wax ngóor jigéen ci réew mi. loolu kenn ku ne xam na ni. ah chariyatu islamiya lam ca wax. lu maanaam daf ko tere ci faaxan boo demee ci mën wax la bible daf ko tax est-ce que bible xam nga bible maanaam waxuma sax maanaam ay góor jigéen waaye bible sax day tere maam ngay maanaam lorñe jigéen maam di ko xool-xool bu puuse waxuma waaye ki xam ni dafay bañ ah. yow nga xool jigéen ni ko jër di ko jàkk mhm. kooku xam nga ni du nangu góor ak jigéen di dem kon maanaam ñun ñun ay woyu gëm lañu maam réew mi ci boppam ñi ko dëkkee ñëpp daa am lu nu gëm ñooña kenn ku ne ci ñoom lañuy sukkandikoo ngir seen foi daf koo tere mhm. loola nag bu ñu xoolee ñi nu jiitee ci wàllu diine ñooñu lan gën a bañ bokk na ci loolu. kon xam nga ñoom bu ñu yëgee ni. loolu moo tax kat yemul ci yéene dafa am ab projet boo xam dafa am ay député yu bokk ci gouvernement bi yoo xam dañ ko entériné woon. Mhm. loolu kon dafay ware ni loolu lu wér la. loola tax na bokk na ci li tax man ñu gën a ñàkk. te kat yemul ci loolu Macky Sall kenn ku ne xam na ni réew moo gis dafa am dee réalités réew mu Sénégal képp ku am xel te xarañ te xejj ci wàllu politique. wóor na leen réew mi kenn du ko jiite te maanaam lii xam ni mooy suñu kilifay yi diine yi wégoo leen joxoo leen ab cër. ah da nga jàpp waaw xam nga am na ci ñoo xam dañu wax ni maanaam am parce que xam nga nit ko wax feeñ xam nga am na ci loo xam ne nii maanaam boo koy wax cim réew ci pencum réew war ngaa tàggat kaddu yooyu lan lay firi. Hmm. xam nga boo taxee daal ni mara bu sont des citoyens ordinaires. Hmm. même ci est vrai du point de vue principiel. Hmm. que ni c'est des citoyens au même titre que les autres maanaam dafa yëllul ci aada ak ci nit nu mooñu ñun ngay waxee ñoom di leen sàllar ñu ci wàllu wu ni mel ay nitu kese lañu boo ko defee da ngay juum xamul tax parce que yow ñi nga jiite ak ñi la fi teg ginnaaw dogalub yàlla ñooñu ñooñu lañ jox seen bopp ci wàllu diine te diine moo ëpp doole ci doomu aadama la nen dëgg la léegi léegi léegi moo tax man la communication xam lu koy waral ah. mooy jël sa mbir maam lépp nga bàyyi ko xel ak tubaab bi tubaab bi ñun moo mënuñu xam nga complexe baaxul complexe maanaam dafa baaxul maanaam ñun ay sénégalais lañu dañu am noo réalité njàngum tubaab dañ koy jàng ngir dañ ci réer waaye doo jël seeni valeur nga ancré ko sa bopp d'accord dégg nga léegi maître léegi maître euh, ñu ñëw ci euh, assemblée bi d'abord hmm. assemblée bii nii yow est-ce que di nga jàpp ne dina nekk assemblée de de rupture comme benno ak euh, opposition que ñoo tollooy député waaw xam nga man dama wax ni assemblée bii ñu xam ni moom la ñu jëm lay am ëllëg yàlla rek ko ko xam mm-hmm. li ma mën a wax nag mooy mm-hmm. am naa lu may xaar ci ñoom mm-hmm. li may xaar ci ñoom mooy lii Sénégal yi bëgg te wane ko ñoom ñu def seen kéem kartan ba loolu am ana loolu mooy lan mooy d'abord jafe-jafe yi askan bi nekk waxuma Séné waxuma ñi ne ci réew mi ngànk ko de. maam le Sénégal des profondeurs. dund yi ñuy dund jafe-jafe yi ca ne. Mhm. ñu xool bu baax loi yi ñuy voté mu méngoo ak luy saafara jafe-jafe yu ni mel. loolu lay xaar ci ñoom. Mhm. lim bokk na ci li may xaar ci ñoom. Mhm. mooy lii ñuy wax les libertés individuelles ou collectives. exercice bi bañ ñoo juralati ñuy waxuma di ñàkk bakken waaye ñu gor ca kenn ba deretam génn. kon war na noo def lu tuuba Sénégal képp koo xam ne am na lu la naqari ci réew mi nga man koo waxta dara du la ca fekk te sàmmoonte ak maanaam. li ñuy wax maanaam mooy. Ah, ah. foofu la ñuy delloo day ñëw président Macky Sall dañu gis na ñaari baat yu mu wax. Mhm. ñetteel ba ne réseaux sociaux yi. mu mel ne réseaux sociaux yi daf ko tere nelaw am na sax ñoo xam ne jàpp nañ leen ba dugal leen ci euh, kaso bi. waaw xam nga luy sabab loolu mooy nga bu njëkk maanaam lii ñuy wax maanaam wàllu média. dañ ko démocratiser wul au Sénégal ñi xam ne ñooy yor di faral di yor réew mi danoo maanaam tegoon seeni tànk ak seeni loxo ci presse bi hmm. ba maanaam kenn ci presse bi sañu la wax loo xam wóote na ak ñoom lañ bëgg a dégg hmm. waa lu mel noonu bu fekkee yow ci loolu ci nan la tabax hmm. nga xëy bis mu mel ni ñenu tënkoon dañ leen a tënki ndax mën na noo waxee ci anam bu leen neex mu dëppoo ak yoon te doo ca man dara loola bu amee day nekk psychose ci yow ba ku wax rek yow da ngay njortu ni te àdduna tukki na moo sabab fi mu toll nii avec di maanaam fu la raison bi am ci wàllu média parce que comme lu mel ni réew mi réew mi FM mais fii ku fi ñëw xam ni maanaam ñoom ci yoon la ñuy dox tey li ñuy def réew mais tax service public lañ yor waa ñooña amutul te ali alal mënoo leen a jënd ci alal ñu moom seen bopp lan di liggéey ngir réew mi waaye loolu bu fekkee da yàlla dafa def mu yaatu lool ci réew mi maanaam yëmatul ci loolu réseaux sociaux yi ñëw gën a feesal ku ne mën a wax xalaatam te yow loolu waajuloo koon day nekk loo xam ne nii day mel ni gént ci yow moo sabab lii xam ni moom la ñuy doxale moo tax yëpp ku wax dul xaar sax nga àddu ba àggale ñu jël la denc kaw mais bu lii may wax ni tey toog fii ma toog di ko wax bu njëkk boo ko waxee boo moytu balaa émission bay jeex ñu jël si la d'accord maître léegi maître euh, Abdinar Ndiaye avocat à yow nga jiite parti rencontre des patriotes du Sénégal léegi parti boobu euh, moom nga jiite tourné nga la page euh, MPD liggéey yow yaa ngi si parti rencontre des patriotes du Sénégal léegi parti boobu bi nga taxawal maître ndax du mel ni ñi nga xamante ni tey dañuy nekk ci benn parti Euh, mere fa wala am fa naqari taxawal parti politique. waaw en fait xam nga Sénégal ma xamal la leen sëñ Abdou Khadre Sénégal am na njël waaye daa amul aaw bu baax loolu moo sabab ñu taxawal la rencontre des patriotes du Sénégal ana lan moo tax mu wax la ni la réew mi am na aawo am na maanaam njël waaye amul aaw bu baax mooy réewum Sénégal mooy réew moo xam ne nii maanaam lii ñuy wax jirgon daf fi am lii ñuy wax or daf fi am lii ñuy wax phosphate daf am lii ñuy wax pétrole ak gaz daf am lii ñuy wax maanaam naataange maanaam ay espace cultivable daf am li ñuy wax soleil énergie éolienne daf am waa lu mel noonu yépp nga am ko ci am réew boole ko am ay doomu aadama yoo xam mooñ na leen ci diina ak ci aada anam boo xam ni duñ yëkkati ngànnaay du nu wax wax ju ju jéggi dayoo loola nga am ko ba pare te yu mënoo dem fenn saw askan di gën di sonn di gën di nekk ci ay jafe-jafe li muy firi rek mooy ñi nu mës a jiite nekk jekk maanaam la leen yitteel ñi xam ne ñoo jiitee réew mi la leen yitteel du lu jëme kanam réew mi looloo tax man ba ma càmbaree ba càmbar ba yëg ni maanaam ñi xam ne ñoo nu jiite la leen gën a yitteel mooy seen poosi bopp ak lu nu am di ko rawale yalloon na ci bépp pour citoyen sénégalais mu taxawal maanaam dynamique bu ko permettre mu mën a joxe fësal xalaatam ak maanaam gis-gitam ci réew mi ci lu koy jëmee kanam ànd ko nag ak ay moroomi nawleem ay moroomi gorom yoo xam ni maanaam xaalis du leen tax a def poste du leen tax a def loolu moo sabab maanaam RPS te RPS yéene ji mooy fexe ba réew mi képp ku fi xëy mën a lekk ba suur mën a naan ba màndi mën a boo feebaree mën a faju mën a également participer en fait ci li xam ni mooy jëmme kanam maanaam réew mi lii mooy suñu fexe également ba bitim réew du mën a teg sur maanaam loxoom ci réew mi duñu wan fan la ñuy jëm ak fundul jëm man dama jàpp nii fi mu toll nii war na noo dañ ci ak réer war na noo dañ ci maanaam ñuy jël suñu bopp di ko di ko di ko di ko jébbal maanaam suñu morom yi nawle yoo xam ni extérieur la ñuy jóge boo xoolee Chine mais mhm. mais euh, mais euh, euh, RPS oui. mais RPS itam maître est-ce que doo ko def ni yeneen leaders yi jiite benn parti politique rek euh, ngar daajoo ko di doxal seen xalaat rek. ba yàlla tere xoolal kaay ma leeral la man ñi ma ñi ma bokkal parti bi am na ci ñoo xam ni ci wàllu xam-xam sax ci wàllum njàng li jaasa ñoo mu ko ëppale. waaye maanaam ñu mel noonu booy ànd ak ñoom yow wóor na la ni xam-xam bu ne ci yow bu ko ëpp nekk na ca ñoom kon te ñun suñu yéene mooy ànd ci àndub maanaam nawle. Mm-hmm. àndub nawle mooy. ànd boo xam ne ni mhm. ni ma taxawee man mhm. am yéenee doxal ci réew mi li ma ko mane noonu lan ko mane te gis nga di nga gis ci kanam tuuti bu nu taxawalee mbir xam nga yàlla na ci mbir bu ñu ko taxawal ñu jiital la ci mbir mhm. yow nga wax tasaare wasaare maanaam sa xalaat ba réew mi yëg ko xam ko bu ko defee bu nu weesee loolu maam képp ku bokk ci parti bu ëllëgee maam ni ma taxawee toog fii di ko di wax noonu lay keneen ñëw toog fii di wax ci non parti mais Sénégal yi Sénégal yi tamit dañuy bëgg euh, parti yoo xam ne boo nekkee ci opposition kenn du werante ne ci opposition nga nekk waaw man je serai un non attendez gis nga kii nunu tudd sëñ Abdou Khadre yàlla xam na ni maanaam tey ngay jàng bu baax ni yëg ni opposition am na ci parti bii ma taxawal nii di nga yëg ni maanaam ñun liñ tax di àddu mooy intérêt réew mi defuñu ko ngir suñu bopp defuñu ko ngir ay poste dañ koy def ngir le salut du peuple sénégalais te boo xoolee ni may àddoo le contenu nga xool ko bu baax nga yëg ni sama intérêt wu ci moo tax ma ne la parti bi ñu taxawal nii dina wuute ak parti fi newoon parce que parti bi li koy jëmbat mooy dox ci dëgg ak ci xamul tax gis nga ah wuy démocratie interne day boo xoolee maanaam baal ba nu génnee maanaam notre projet de société ba pare baal ba nu génnee maanaam sunu ñi xam ne ñoo composé maanaam maanaam parti non xamul tax xamul tax man dama gëm ni la vérité certaine alors que le mensonge même au paroxysme de la célébrité finira par déchoir et s'évanouir man loolu la gëm gis nga aw askan booy wax ak ñoom te ëppooloonum xel ëppooloon am njàng gënoo leen yéen ji ji nga am moom lañ am ci réew mi booy wax ak ñoom waxaal ak ñoom ci dëgg ndax dëgg rek mooy mujj leneen lu dul dëgg ci nërmeelu la jëm man loolu la gëm moo tax mën am ma yéene benn yoon jàkkaarloog samay nawle di wax loo xam wuute na ak li xam moo ne ci sama xol yal na ma ci yàlla musal musal ci mboolem ku may àndal ci dynamique bi. d'accord mais mais mais maître. Euh, waaye nag ak njub. waaw d'accord léegi du nekk euh, parti communal wala départemental wala régional wala national day nekk parti international est-ce que yéen pare ngeen pour ci Sénégal ngeen taxawal ay section mhm. même bu passé Sénégal ci diaspora mais ci fii may waxee yow rek ban ko lancé léegi. Mhm. mais li fi am on a des sections partout même en France. am na ci koo xam ne nii daf nu woo. personnellement ni ma dafa bëgg mën naa la woon sax ci sama téléphone tey bu doon télé la dama lay wan audio yi nga déglu kooku daf maa wax ni ma yow de ba ma jëlee déglu maanaam un politique bay Sénégal di Sénégal ba léegi ni ma dégg nga ni àddoo li ma ca jàngal rek mooy borom boromab yar nga boromi teggin nga borom xam-xam nga te wóor na nit ku dëggu nga njort loolu la am ci yow te lii ngay wax ni gëm naa ni réew mi rek a tax nga di ko wax kon jàppale bis tey ni man bokk naa ci ñi xam ne ñuy dëgëral sa parti te du ma yem ci loolu fii ma ne ci France dinaa la fa liggéeyal ba nga am fa benn section bu am doole waaye yëmu ci loolu fii ci réew mi damay xëy rek sama téléphone sonné allo asalaamaaleykum man la diw dama bëggoon a jënd carte de membre bu RPS wax ma fu mu doon ñooñu ñëw nañu jënd carte ma cacheté leen jox leen kon loola mi mel ni lii ma lii ñu yëkkati nii senegal yi ci seen bopp ñoo ko bëggal seen bopp fas yéene koo téye. kastanal ko mais est-ce que tey déception bi nga am ci euh, Aliou Sow est-ce ñeneen du ñu am déception boobu ci maître Abdinaar Ndiaye. incha allahu bu fekkee yàlla dindiwul li ne ci man te yaakaaruma ko déception boobu du am xamul tax parce que man sëñ Abdou li ma mën a kitaabu mooy wóor na ma du ma dox mukk ci sama bakken kuy diisoo laa ak ñi may àndal benn ñaareel bi mooy lépp lu may def duma ko def mukk ngir intérêt. wala maanaam ab poste bu ma bëgg a toog wala alal ju ma bëgg a am. d'accord man dañ maa mooñi ci anam boo xam ni. am ak ñàkk ñoo yem ci man xool ba may wuti élection législative élection locale yi. tundu Taïba Ndiaye li leen gën a yéem ci loolu bokk na ci parce que fu ma dem au lieu ma wax nit ñi ni leen voté leen ma dama leen xamal ni leen yéen ay ja ay jaam yàlla ngeen di ay gor ni man man dama bokk ci yéen am yéene taxawal leen fa xam ni kenn ñun ci suñu jëmmi bopp ñëpp mën nu faa féete ma bëggoon maanaam képp kuy voté na def li xam ni moo dal am xelam ndax man falukat ak ñàkk falu ñoo yem ci man ndax dama gëm ni ak pal ci loxob yàlla rek la ne yonent salaay salaam yàlla da koo ci alxuraan ni ko waxal jaam ñi nee leen man yàlla maanaam lii di nguur maa koy jox ku ma neex di ko xañ ku ma neex ci anam boo ma neexee loola nag boo dee ab jullit xam ko yow wër na la ni ay pexe du la tax a falu mhm. am xel mu neex du la tax a falu loolay loo maanaam ñi xam ne ñooy jiite réew mi ak di ko laaj ndax dañuy ni maam ñi ñuy waxal taanal dañuy nelaw te fekk na ñi ngay waxtaanal maanaam ñoom xam na lu ëpp yow li nga xam dañ wax ni la la la la la la la la tef tef tef mooy béy wu ndaw la mu sax bay cëpp cëppeek moom nag dañu ko fuuf ni kell ak moom ñoom ñi xam ni ñooy jiite réew mi wala bëgg maanaam jiite réew mi maam lu mel noonu moo leen di nax ndax dañuy njort ñi ni waxtaanal ñoo leen ëpp am xel gën leen a xeej gën leen a xaram te alors que xamuñu lan yor ca xam-xam ña toog di leen diglu ñoo leen ko ëppale fuuf d'accord mais RPS yéen euh, yéen RPS est-ce que bokk ngeen ci opposition radical bi fas yéene jàmmarloog mag Sall ngir mu am beneen ngir mu bañ a am euh, troisième candidature. waaw noo man déggu li ma la man mais mais li may euh, sëñ Abdou Khadre li may wax nii kenn da ko wax. li ma wax nii mais mais mais bañ a yem ci wax. déedéet bu marché amee ñu ngeen lay la kay ma leeral bismi ki tey. ngay yëg ni lii ma lay wax nii dëgg la te bala nga koo xam mooy nan dem ba ci kanam gis nga fi mu toll réew mi lépp luñ fi lépp luñ fi sëmbati. manifestation ak béykat yi maa cee ñuy njëkk ca manifestation ba ca lay bokk. booy boobu fekkee maanaam dañoo bëgg a arrêté maanaam population booy boo ñuy créé yeneen yeneen yeneen prison parce que wóor na ma ni man moom incha allahu lépp loo xam ni gis naa ne du njariñu réew mi maanaam dinaa def pexe bokk ca ñi xam ne ñooy fësal loola. wane ni lii njariñu réew mi néew te boobaa du ñem nag du ñem ci dénonciation xam nga man man nekkuma foo xam koo xam ni damay ñëw naa noonu lii wërta ne déedéet boo nee lii mënta ne wala gënul ci askan wi dangay ngay wax nga xam ne ñoo ngànk lu ni mel ne leen lii ngeen yor baaxul ci réew mi man am naa solution lu gën ci li ngeen di wax lii la proposition concrète xam nga loolu dafa aussi bokk ci li xam ni mooy doxal démocratie parce que démocratie aussi dafa am ay dañ koy dafa am dafa am ay charte mënoo day ñëw loo nit ñi wax nga ni nga fàbbi ko ni lii maam baaxul te alors que yow en personne doo def une proposition concrète ci wàllu ni mel man bu ma nee lii baaxul dama naan lii baaxul parce que jàpp naa ne lii mooy li ko gën mmh. loola nag dina ma jaral sama bakkan mmh. fésal ko wane ko ba ñëpp xam ko. moo tax ma ne la day am ay opposant salon du sa. Ah, non non man dama noonu yow boo ma xoolee xam du ma loolu. Hmm. boo xoolee parti bi ñu yor nii maam bu wax jotee may génn alal la ma am joxe ko mu néew mu bari tey fu mu laaj ñu ànd man ba may gis nga université boo fay ne. Hmm. mais parti bi lu tax mu amoon set set dafa amoon doole ci parti bi xam nga tax ba demee université dafa amoon des yoo xam c'est des gens yoo xam ba fii ma xëyoon nii mais kenn ku ne ci ñoom mais fa mu ne réew mi di ko yor mais ci ñin gën a naw ci réew mi lañ bokk te xam la ko sabab mooy ba nekkee dañoo nungoon a wàcc sur di def ay campagne d'affichage ñi may affronter les les étudiants ci débat contradictoire mais ñi ma xam xam nañ lool ci man dama la boo nga xam ni man maanaam nit ñi xam nañ ma mooy baal boo xool demal réseaux sociaux yi nga dugg ci bu ma defee publication wala dara seetlul ñiy wax te xam ma démb la ñuy wax ca man xam na ni man duma ma mën waaye jamais ma di dignité xam nañ ni principe maam xool ba may soog di dugg université damaa dugg université bokk ci cinq premiers centre wu ba ma jógee war a am néeg ma ñëw ñu bëgg ma koo xañ xam nu ma def j'ai porté lu combat j'ai porté lu combat ba am ca ndam ak ña ma ko àndaloon maa la ko wax yëmu ci loolu yàlla daf noo nattoon ñu reprendre deuxième année deuxième année bi coïncidé ak maanaam une réforme bu ñu dugal université ba mu duggee ñu bëgg a sukkandiku ci loolu bëgg noo génne alors que réforme bi ci boppam disposition yi mu comporté dafa favorable même ci statut bi nekkoon. j'ai porté le combat bi ma demee ci recteur ba à l'époque ak le médiateur à l'époque bi ma ñëwee wax ci seen kanam dan ni ma waaye yow nan nga mën a sax reprendre yow deuxième année. parce que yow xam-xam bi ngay waxee nii maanaam am na nit ñu toll ci master amul sax dégginu ci wàllu yoon. ci droit ci droit billaahi wal kitaabi lu ñuy wax yaakaar naa mujj médiateur bi. moo doon ki xawoon nu mu tudd sax. dafa jóob waaw te te njool. non ku njool la. Ah. bokkul ak Serigne Diop Sadaf mais xam ma buuba buuba buuba xam ma nan la tudd dama fàtte tur wi. moo moo moo wax ni leen waaye yéen fu ngeen demati daa wax ñooñu ca séance ba ni leen yéen fu ngeen demati yéen bu ngeen jël kàddu bàyyi leen kii muy wax ci yéen. ba ma demee waxtaan ak maanaam le doyen des juges le doyen astafurlah donc de la faculté bi ma argumenté du point de vue technique juridique. daf ni ma ci sancel la woo ci sama kanam secrétaire bi ni ma na ngeen ni ko autoriser képp ku ne ci situation bi mu dem en licence kon xam nga ni ma nekk naa avocat lu jiitu ma koy doon may sam boobu te ñooña lii ma lay wax nii defal enquête am na ci tey ñoo xam ne nii am nañ seen master wala seen doctorat di servir le peuple du Sénégal ñooñu tey boo leen ko laajoo ñu wër ni ñu firndeel ni loolu dëgg la. d'accord jërëjëf jërëjëf maître. yàlla bind. jërëjëf waxtu bi jeex na ñu lay sant la gërëm. man maa lay sant sëñ Abdou Khadre di la gërëm di la ñaanal yàlla suñu borom di ñaan télé bi maanaam rajo bi yal na ko yàlla yëkkati ba mu sut mboolem télé te dëgëral leen may wàllu également may wax sénégalais yi ni leen man de mën naa kitaabu ni maanaam lépp lu may wax wala di ko jëf c'est pour l'intérêt du Sénégal loolu man maa jël décision ferme ci loolu xam nga tax ma jëf sëñ Abdou Khadre maa man lu ma doon ginnaaw dogalub yàlla peuple Sénégal bi contribuable Sénégal ñoo fay samam njàng ñoo ma faj bu ma feebaree ñoo ma jox ma lekk ñoo ma jox ma naan ba ma toll ni ma toll sim devoir la ci man la xam ni maanaam dund naa ko man ji seen pays bi jariñ ma ko ma man koo delloowaat réew mi teg ci njub ak ci dëgg yal nañ ko yàlla dimbalee defal na ko te dimbali Sénégalais yi defal leen fanu gudd ak wér ak xéewal te mosal leen ci lépp lu mën a gàllankoor. jërëjëf euh, maître Abdinar Ndiaye moo jiite euh, RPS rencontre des patriotes du Sénégal avocat à la cour moom la ñu invité woon seen émission pencum réew mi samedi bu jot 15h 16 ngeen di si ànd ak Abdou Khadre Seck jërë ngeen jëf jàmm ak jàmm.